allo waaw yaay gis nga nag yaay xoolal yow ak sam nag foog ngeen may ma jàmm déedéet nga baal ma mais dama sonn sam papa ne ko na def naa tuuti moom xam na ne liggéeyu ma Ousmane liggéeyul suba ba ngoon lu ñu rey ci kër gi ci ci loxo Babacar la jóge ah na ma may tuuti moom tamit nag déedéet déedéet xaaral rek ma expliqué la maa ngi koy lijjanti te daanaka fi mu ne sotti na ba pare mais na def nànk lenn rek laa bëggoon yaay Aïda moom ci kër ga ne ko nañoo fekk si ma fii dama bëgg weeru koor yi mu nekk ak man ndax dama koy soxla yow xam nga bu baax suñu kër gi ni mu mettee yow baax na waxal ma loolu Aïda man li ci def après naa yaay gis nga man waxu miraas bi waxewu ma ko loolu de Ousmane moom moo comprendre wul yaa ngi dégg ndax moom wax naa ko ba sonn waxu miraas na ko jël teg ci suuf waaye Ousmane Mbaye dafa dëgër bopp du dégg chaque jour ma wax ak moom yeddu naa ko guddi yeddu naa ko bëccëg waaw kër gi moom jàmm kese laa fi bëgg ndax ndey saare ni mooy sama mag te ci moom laay roy nekk ci weeru sell wi atum lëmm ngay lekk ka naan di def lu la neex nit ñi di jéggalu yàlla seeni bàkkaar nga def sa colko bu bon gi xoolal sa mees yi kenn xamul la nga ñuroo nga def def ñu ne déet nga am ay say we meer doy na cëppe ma doomu jàmbur laa xanaa boo waxee tuuti sax nga bàyyi Ousmane mi nga xam ne mooy sama kilifa mu wax bul ma jeexal yow li la nga man soo tàmm naa dégg wax bu ñàkk kersa ci yow lii du mën a gulee waaye loolu sax taxul man ma woo leen koddu man sama yaram neexul umpalewul leen ko ndax ñoo bokk kër gi tey ma jóg suba ma feebar te ñu ngi ci weeru koor gi dama bëggoon ngeen may toggal bu ko defee mu mën di jël sama garab yi ndaxte eh eh eh Ramatoulaye yow maa ngi wax yëggalaguma sax nga ne wërën di dem yow doo déglu ba ba pare. xam nga mais lan laa lay yëgal tuddloo ma. koddu nga tudd da nga bëgg ku la ngay lekk xam nga toggal ngay wan sant ko koddu bu dee man rek ma xam ne doo dërëx. pour ki kan lay tontu tontu sama xol. luy jooy yow tamit. déedéet déedéet yaay waaw ma. pour la ma may ñàkk kersa waa kii Ramatulaay nii la mel amul kilifa yow tamit. wuy ma di nga ndékki di nga añ te di nga yaa ngi dégg. yow coono may dégg ci kër gi lan xanaa seen màgget mi ci kër gi. waaw wóorul bëgg saa bu ma xëy di ko togg di ko jox muy wan pour nag kaay ma wax la gis nga ni nga amee droit ci kër gi noonu nga war a defee say devoir ndax kat bu boo ko deful bu ëllëgee suñuy gërëm kenn du la gërëm de. soxlawu ko. Ah! te kan sama conseil danga ko war a dégg am naa conseil yu baax yoo xam ne su ma la ko waxee. toggalooti. yow mi ak conseil xam nga nooy def da koy jël nga togg ke nga kaane ka ba mu wexaat xam nga moom xol bi baaxul. <laughs> papa ma kumba bu faatoon mu dem waa daal kenn dara la toggalaat kenn. papa ma kumba yaa wax lii. Ah, <laughs> papa ma kumba nag musuma xam ne yow mi am nga ay conseil yu baax. waaw da def rek. pour ma jël togg bi def si kaay. waaw mu saaf. ak maa koy sawar. papa ma kumba yow am nga xalaat de. yow de gis nga boo doon jigéen di sëy yërëm naa say wujj. Hmm. lenn rek ma ci jaaxal de. Hmm. doo tal bu sew. <laughs> am yàlla ja soxna si yalwaanu ma ah yalwaanu <laughs> ki nga xamante ne tubaarkaala du tas benn yaakaaru géwél dama ni way ji ma lay way ne ko way bi wayum géwél la ko du géer gu ko ma way la ko mbaax sa fasa ah lay lay lala woo ko lay lay lala Sëriñ Babacar mi bilaay way bi wayum géwél la ne leen géer gu ko yelloo ma way la ko mbaax sa fasa ah lay lay la woo waaw lay lay la la man bëgg naa la ne leen wayum géwél la ko du géer yelloo ma way la ko ah, lay lay la wooy lay lay la la man bëgg naa la bilaay way wayum géwél la ne ko giir gu ko yelloo ma mbaak sa fasa ah, ko du aan lay lalaawoo lay lay lalaaw ah, Siri Babacar <laughs> doomi garmi garmi lay doonay ma way doomi garmi dana ka wayal daal way ji ma way oh, way bi wayum géwél la <laughs> billaay giir gu ko yelloo ma mbaak sa fasa ah lay lay la la woo lay lay la la perte bëgg la sama géer gu ñaawul gànge ne ko géer gu ko yelloo ma way ko ko mbaax sa pasa li nga dëkk man laf cat fàtti lan laaw la cat subaana ma si bët bu aay man sonnoon laa yërëm ku la bañ yàlla na tuxu waaye lii rom ak kanamam bu gàtt na téere bopp kii mu doon musuma ko gis si kër gi solo borode di romb nit ñi di leen amal bor amaloo kenn bor te sa bakkan borewul baax nga gën nga gara nga yaatu nga lii du ma ne bu doon heure ba ma mayee sama loxo yu kuuñ bu may ñëw si yow damay bërëngu. ah booy Cheikh. lii nga dëkkeeg man laf cat. booy Cheikh def naa ko daaw def ko ren war a ko defaat nag déwén yàlla nañu fi yàlla bàyyi ba déwén. kenn du yow.

waaw. ma yaay booy. Babacar. yaay noo def. maa ngi nii rek. ah maa sa coono. yaay lan la lu xew. dara. yaa dafa mel ni am na loo may nëbb de je suis en train de pleurer lan la qu'est-ce sama xol a sedd rek nëbbu la dara mbay. ndax sa papa fu mu tegoon tànkam fu nga teg sa tànk. dafa mel ni mi ngi toog sama wet. ndax xiifaloo ma maraloo ma. wax dëgg yàlla manqué wu ma dara loolu moo feesal sama xol rek ma lay ñaanal yàlla bu baax lépp loo yóotu yàlla na ko yàlla teg ci sa loxo sama xol moo sedd. mais man bëgguma la gis ngay jooy vraiment bëgguma la gis lépp lu ma def sama wareef la yow yaay suma yaay yaa ma andi àdduna dama war a liggéey ba dee pour yow d'accord donc bul jooy. Hmm? tuuti naan ne xam naa li ngay xalaat da yaakaar ni situation yi dafa metti déedéet yëpp yoo xamante ne si war a war wa lu ma waroon lijjanti la ci kër gi pour koor gi yàlla suñu borom dimbali na ma ba sotti na. jëndal naa la sa ravitaillement ba ba mu mat jëndal naa la aussi sa mudd bi nga war a génnee pour matal sa ay farata ci koor gi. parce que bi sax nee na ma loolu boo ko defee wàccoo nga ak li nga war a def yëpp. parce que doomu aadama yi li leen war ci weeru koor yaay du leen wàcc bu ñu koritee ab jullit bu wooree du lekk kese lay bàyyi tax mu woor day wooral ay gëtam wooral làmmiñam wooral ay noppam bañ a dégg lu bon bañ wax lu bon bañ a def lu bon ndax làmmiñ mën naa dem yaay fu ko boroom yabalu waaye tànk bi fu mu dem boroom a ko fa yabal kon suñu ay tànk dañ koo war a téye jaamu yàlla tey ñaan suñu boroom jéggal ñu ci weer sell bi ñu nekk man nag sant naa bu baax ak sa liggéey yàlla suñu borom dimbali na ba lépp lu ma sonnoon am naa ko tey mu ngi ci biir donc yow ñaanal rek lépp lu ma mën pour que nga bëgg incha allahu rabbi dinaa ko def parce que man yaay sama xarit ñaanal ma rek yow boo ma ñaanalee rek xam nga sama xol tey seen lu dëgg ñaanal ma rek